mbokk yeeg xaritu internetu 313 digital ginnaaw bi ñu leen nuyoo am nañu naqar ak tiis euh, tàggee leen ki nga xam ne moom mooy euh, tonton Charles ñu gën ko xam ci euh, Charles Foster moom nag kenn dootu ko présenté ci milieu bi nga xam ne ci la ne ci wàll wi muy yëngu di wàllu cinéma donc kenn dootu ko ci présenté à travers ses œuvres am na ay œuvres yu bëree bëri yoo xam ne xàmmee nañ ko ci waaye rawatina théâtre bi nga xam ne moom mooy théâtre Fatou ci la ko gën a xàmmee feebar bu yàgg lool mu tëddoon ko feebar wuy ji na boroomam bés ni ki tey donc ñu koy jaale képp koo xam ne yaa ngi ci milieu cinéma di ko jaale itam ay mbokkam di ko jaale ay jigéñaaleem ba tey ki nga xam ne moom mooy tonton Charles ñu gën ko xam ci Charles Foster ñu bëri remarqué nañu nemmeeku nañu itam li nga xam ne moom mooy ay ndimbal yi mu doon def jëme ko ci yenn jigéen ñi ak itam ñenn ci ay góor ñoo xam ne jege nañ ko seede nañ ci moom li nga xam ne moom la doon def ci ay ndimbal jëmee ko ci ay doomu aadama donc euh, ñi nga xamee ni nag euh, ñoom ñooy ay waa këram ñu ngi leen di jaalewaat bu baax a baax te di leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ